xam nga nga jékki-jékki ne nit ñi ñaari mandat nga xëy mu newaat ñetti mandat laa jëm ñetti mandat nga ñëw ne fukki mandat laa jëm ba si yàgg sax nga ne sax da ngay annuler sax élection yi quoi benn élection du am ba 2024 nga toog ba mu neex la nga wàcc quoi mais dama lay façon conseiller nga am mais sa conseil baaxul ki lay digal lii man dégg naa sa wax yoo xam ne waxoon nga ko démb ngay wax xaw ma bay jox exemple xaw ma ba dëkk naan seen njiit ji comme li ngay def nii loolu la def mais après nit ñi ñoo waate ci mbedd mi fees dell ci mbedd mi gis nga nit ñi bu ñuy jog sénégalais yi xawma koo lay conseil mais bu ñuy jóg billaahi duñ tàggoo wallaahi Macky Sall sénégalais yi xawma koo lay conseil mais conseil baaxut sénégalais yi bu ñuy dem bay jóg di fipp nekkul nit ñey toog di programme naan kaay leen ñu def dem dox ñaxtu kaay leen dem programme def fee jour tel ñii ñëw ñii du ñëw nit ñi ñoo koy yëgandoo jugandoo booy boo nga bàyyi xel loolu bu baax a baax Macky Sall da nga ñoo moomut Macky Sall da ngaa moomul li li nga jël dafa ëpp dafa ëpp ba tuuru te lu ëpp tuuru Macky Sall muus boo ko toppee mani la yor sa xiir di caw muy daw yaa ngi caw sénégalais ñuy daw ngay caw ñuy daw ngay caw ñuy daw billaahi bu nu demee ba sa simiir bi bun la xiiroo di nga tëb lu wér laa la wax bàyyi ci xel waxi mag la mais sama gaay dama ni leen maanaam li nga xamante ni si Macky wax na ko nii lii moom moo ko wax nee na moom waa diaspora bi ñoo ko doon jàppale. waa diaspora bi nee na am na ñoo xam ne xaalis nag léppam ñuy ñëw ñu koy jàppale léegi yow Macky Sall boobu kii mi ngi fi Ablaye Wade mi ngi fi Ablaye Wade doxalewul woon comme ni ngay doxalee nii sa xeetu doxalee nii moom waxu la dara yow tey Ousmane Sonko waa diaspora bi ñëw jël seen xaalis di ko jox ngeen ne xaalis boobu ci li ma dégg li nga xam ne wax nañ ko bu fekkente ne lu am la teg ko ci suuf bu fekkente ne looy naar la nga teg ko suuf foofu la ñuy waxee yow Macky Sall moomoo ñu moomoo Sénégal yi moomoo Sénégal li ngay def nii baaxut li ngay def nii du la jik booy boo nga ji xel bu baax a baax danga yow man damaa bokk ci jas man ci waa diaspora bi laa damaa bokk ci ñu cotiser xaalis pour xaalis boobu ñëw egg Sénégal dem ci Ousmane Sonko xaalis boobu ñun ñoo ko dajale ñun waa diaspora bi ñu dajale suñu moon it pour Ousmane Sonko ban kay dajale ci Ousmane Sonko nekkul dañ koo jox pour papa yi Ousmane Sonko wala yaayu Ousmane Sonko joxuñu ko ndi yaayu Ousmane Sonko joxuñu ko Ousmane Sonko pour Ousmane Sonko def ko ci poosam Ousmane Sonko lim fi wane ak lim fi gis la mooy benn Cheikh Anta Diop boo ñu bëgg a rayal bu fekkente ni lool ngeen naan ku ñu ko bëgg a rayal yaa ngi ñu a rayal a a rayal benn Nelson Mandela ku ñu ko bëgg a rayal yaa ngi ñu a rayal benn Kadhafi ku ñu ko bëgg a rayal yaa ngi a ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax ndaw yi tey ñun jeunesse bii buñ fekkente woon jamonoy Cheikh Anta Cheikh Anta du dee buy dee ñun ci ginnaam la ñuy nekk bu fekke woon jamonoy Mamadou Dia Mamadou Dia du dee ñun ci ginnaam la ñuy nekk te duñ ci déglu ndey duñ ci déglu conseil bàyyi duñ ci déglu conseil kenn ngeen bàyyi ci xel baax baax ndax ñun li ñu yëg ak li ñu xam nday nday yëgu ko bàyyi yëgu ko ngeen bàyyi ko xel danoo tukki génn di xool ci àdduna di def ay jàngat-jàngat xam ne xew xam la tardel Seex Anta xam la tax ñu rey Seex Anta xam la tax ñu rey Mamadou Dia xam la tax ñu sàkkal mbooloom pexe njiit boo xam ne njiitum africain la koo xamante ni bëgg na Afrique jëm kanam muy tubaab bi muy nasaraan si ngir rek nan gor seen tànk pour système bi mu fi jege pour buum ak jaam gi ba léegi ñun danoo sonn Macky ñun danoo damm ma ñun danoo tàyyi Macky ñun danoo toogul di gëmati personne nga bàyyi xel loolu dama bëgg nga bàyyi ci xel bul foog ni Ousmane Sonko mii boo jàppee Ousmane Sonko Ousmane Sonko nga jàpp jàppal ni jàpp nga benn Medoune Diop jàppal jàpp nga keneen wallaahi boo laalee Ousmane Sonko ci loolu da nga nga def loo xam ne xaw ma ku lay conseil conseil bu bon conseil bu bon lan lay conseil loolu nga bàyyi ci xel Ousmane Sonko boo ko laalee dafa mel ni Mamadou Dia wala Cheikh Anta bu fi taxawoon nga ñëw di ko jàpp si jamonoy 2021 bii loolu nga def ci sa xel bu baax a baax sa conseil loolu ko jël ko kon nga teg ko ci wax dëgg fa yàlla lii yabaate la wax dëgg fa yàlla président lii tooñ la da nga yab saw askan respecté woo saw askan nga respecté ñu nga xam ne gis nga ba ci Sonko mii nga yaakaar nii tey naan da ko bëgg a utal pexe wala benn affaire wallaahi Ousmane Sonko bu soppee ñun ñoo koy ñun ñoo koy mbëkk tulli ko nga bàyyi ci xel bu baax a baax Sonko mii dañ ko jiital mu nekk guerrier lekk combat bi ne engagé combat bi moom day jiitu far force Sonko day day liggéey far force ay ay góor yàlla ñoo taxaw ci ginnaaw pour nga bàyyi xel góor yàlla yoo xam ne déglootuñu nday ñun dañoo sonn déglootuñu nday déglootuñu bàyyi déglootuñu sëriñ amul ku ñu toog di ko déglooti ñun lu ñuy déglu mooy Sénégal bu jëm kanam bu mu jaam gi dog pa tafar fos bu mu jaam gi day dog ñun dañuy xeex ba naaw dañuy xeex franc CFA bi mu jóg fi ñun dañuy xeex suñu doom yi nga xam ni ku ci feebar doo faju ñun dañuy xeex ñun ngeen jël suñu alalu réew bi yëpp jaay ko suñu pétrole bi kenn dundu ci suñu pétrole bi ngeen jël ko di ko saax-saaxee ay milliards et milliards ngeen jël di ko sàcc ku leen neex tëj lu leen neex def bu leen neexee bum bu leen neexee bum bi loolu moo fi jeex ngeen xam ko ngeen xam ni ndaw ñi bu leen jàpp ne Ousmane Sonko kese ngeen mais ñun ngeen amal affaire ñu billaahi ñun ngeen amal affaire maam ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax Macky Sall da nga ñu yàpp booy wax mën nga wax say wax bu la neexee tuural pétrole ba sénégalais ñoo xam ñoo toog fii di seetaan ñuy tuur pétrole ba bu leen neexee sàcc leen 94 milliards lu leen neex def leen mais loolu dina jeex incha allah mais balaa muy jeex il faut nga jóg fi balaa mi jeex il faut élection am ñu jël ay carte nga jaaree ko ci yoon ñu sànni ay carte ci normal nga jóg fi ci jógin wu rafet ndax bëggatuñ la ñu def ko loo xam ne lu civilisé lay doon bal du tàkk sagar du xeeñ élection yi jaar yoon nga organiser élection yi mu jaar yoon ñu sànni carte ci mu rafet ci loo xam ne benn coow du am fitna du fi tàkk dara du fi tàkk si jàmm ak salaam mais bu fekkee da nga bëgg taal Sénégal nga wax ñu ko am na loo xam ne nit ñi ko dul nangooti am na loo xam nit ko seetaan mais bul tooñ Ousmane Sonko bul tooñ Ousmane Sonko sama gars partagé bul tooñ Ousmane Sonko am na loo xam nit ñi dañ ko dul nangooti lu la neex defal ndax sab ay la sab jàll la yaa toog sénégal yi ñoo la fal mais bis dina ñëw nga wàcc na nga fexe ñu élection yi élection locale yi nga wax ci mag yi ñu bàlloo waxuloo ci ay élection locale yi waxuloo ci dara nit ñi bàlloo waxatuñu dara Ousmane Sonko ñun ñu dajale sunu xaalis ñun patriotes yi ñun ñu bëgg suñu réew gëm suñu réew joxuñu ko ndeyu Ousmane Sonko joxuñu ko baayu Ousmane Sonko Ousmane Sonko bu doon lu dugal ci poosam la bëgg man du ma ko jox dërëm du ma ko jox ñaar dërëm lii ñun Sénégal lañ ko defal Macky Sall suñu moonin bu ñu dajale kaay ma wax la lan la bu fekkee comprendre loo ñun danoo bokk suñuy groupe ci groupe bu Pastef suñu xaalis bi ñuy dajale suñu moonin bi ñuy dajale danoo dégg Ousmane Sonko di woote woote naan Macky Sall lii moo tax suñu alal dajaloo Macky Sall ñun danoo gis hôpital yi ku ci feebar doo faju Macky Sall ñun danoo gis ndoxum mbënd bi kër nit ñi di taa Macky Sall ñun dañoo gis ñuy sàcc suñu alalu réew yuñ ci war a tabax ay hôpital nit ñi gis ci seen bopp Macky Sall ñun dañoo gis tey franc CFA bi arrangé wuñ Macky Sall ñun dañoo gis lu ñu arrangé wut buumu jaam gii ngeen nekkal fi système bi carrément nekk fi jaamu tubaab mu leer naa ñu ñu bëgg loolu deñ loolu soo ko wootee ci buumu jaam yooyu pour hôpital yi taxaw pour nit ñi mën a faju pour mbay mi baax pour nit ñi di mayee deret pour nit ñi di dund pour Sénégal gu jag lu mel nii moo tax man Medoune Diop ma jël ñu woote cotiser ci Ousmane ma cotiser kon li ma cotiser bu fekkente ni Ousmane Sonko dafay dox pour dem ñu cotiser sunu moo ni pour mu dem sensibiliser ndaw yi nekk ca kaw ga wala ndaw ñi nekk feneen wax ak ñoom ci wàllu mbay wax ak ñoom ci Sénégal gi nan la war a taxawee wax ak ñoom ci Sénégal tabaxinu bon bu salte bii ñu ko tabaxee wax ak ñoom ci Sénégal ci naafeq yi fi nekk di sàcc sunu alalum réew di ko fowee tey la ñu tubaab bi di wax ak ñoom li mel noonu ñun looloo tax ñu cotiser kon loolu kon bu ñëwee xaalis ba buñ ko fa dugalee alhamdulilah ñun loolu lañ soxla pour sénégalais yeewu ñu dajal suñu alal mayoo leen ñu ko ñun dañoo nekk fii ci Europe di di daan suñu doole yaakaaruñ tus yéen lu nu liggéey yóbbal suñu réew suñuy doomu réew sonn ñi ngeen waroon dimbali dimbali wala ci kenn suñuy doom yi di feebar duñ am ay ordonnance ñu ñëw faj ko sa mbokk am ordonnance nga ñëw faj ko keneen am ordonnance nga ñëw faj ko di joxe bay bëgg dee ñun moo di sonn nañ ñun du ñu cotiser nii ñu ngi ko cotiser pour Sénégal ko defaru pour du yónne yi maanaam daf dañ cee sonn ci yónne yi métti yi dañ cee sonn pour nit ñi mën a liggéey pour ñu mën a bay suñu réew lu mel nii lañu cotiser mais du ndaayu Ousmane Sonko lañ ko jox du bàyyi Ousmane Sonko lañ ko jox du jijaayi Ousmane Sonko lañ ko jox ñun gëmuñu Sonko ñun li ñu gëm Sénégal la Sénégal Sonko doon patriote gën ñu nekk patriote gën ñu bëgg Sénégal ñu topp ci ginnaaw dajale moo ni moom ne ko sawaay li ngay def nii ñëwal ñu ànd ñu defandoo ko suñu xaalis sa ñun wala yi ñun miskiini ngir bëgg buumu jaam gi dog pour nga comprendre loolu ëppale woon ñu tous ci Sénégal yaay sunu njiit waaye moomoo Sénégal yow da nga war a nekk sunu jaam nekk sunu ginnaaw di nu jaamu mais du sa di koy baaroole yi ngay jéem a di doxal Macky sàll ëppal nga Macky Sall yamal Macky Sall teeyal wallaahi da nga bëgg a taal Sénégal da nga bëgg a taal Sénégal Macky Macky yamal Ousmane Sonko dajale xaalisam yow ba mu nekkee fee yow ngeen waa diaspora bi ñoo la dimbali Ousmane Sonko ñëw waa diaspora bi man ma jox ko ci yéene bii ca yow waa diaspora buñ la dimbalee duñ la dimbalee ci loolu ku ci nekk ñu ngi lay dimbalee muy borom alal yi nga xamante ni sii noonu la ñuy dimbalee comme ni nga xam ni Babacar Ngom Sidima dimbalee na la ko pour mu mën a sàcc ay pàkk nengaleer après geen ñëw mën koo dooleel mën koo signal ñu nekk ay tooñkat wala Youssou Ndour ñëw jàppale pour TFM mën a dëgër wala keneen yéen ku leen dimbali seen dimbali bi leen dimbali mooy jox leen pooju picc di xalaat ci sénégalais yi pooju ñaay boo xam ne moo ko liggéeyuloo ko te pooju picc nga jox sénégalais yi ñun danoo doxut lii Macky Sall dama ni la nga yam Macky Sall àndal ak sa xel Macky Sall dellool sa xel te xam li ngay def nii maanaam nguur gii du continuer lu mu yàgg-yàgg sa nguur gii dina jeex bu dee jeex na fekk yàlla moo la rey nga sóoraale sa digganteeg bàmmeel te xam ne yàlla billaahi dana la fudd si sa tooñ yi nga nekk fii di ko tooñ saw askan njiit bu bon boo xamoon la ca yàlla wax wallaahi di ngeen moytu bon ci ak njiit ci alalu àdduna gu ñàkk solo gi àdduna ngeen du dara pour ngeen bàyyi ci xel Macky Sall bu fekkente ni du loolu nga wàcc nii ci ak noo mënta wàccee jàppal ni boo wàccee nekkatoo njiit li nga lépp la loolu la lay fay Macky àndal ak sa xel Macky utal conseil yu baax Macky nekkal nit te nga xam benn affaire yow nettali nga fi yaa ko nettali yow sa bopp sa laam laamiñil bopp yow nettali nga histoire Firawna ak Moussa istu dafay mel ni Ousmane Sonko mooy Moussa yow yaay Firawna Macky Sall yow nettali nga fi maanaam histoire comme ñi nga xamante ni si yeneen réew lañ nekk fàtte naa xaw ma ban réew nga waxati nga ne président ba ba mu defee sa jëf yi ngay jëf kiif kiif wala nga jëf lu ko gën a yées askan wa ñoo jekki-jekki peuple bi jug fépp dem dal si kawam lii nag li ma lay wax ni mooy loolu gis nga muus boo ko toppee di ka caw muy daw comme te daw na bàyyi ko nga cawaat muy daw comme te daw na bàyyi ko nga cawaat ba mu sës si mbir bi amatul fu mu jëm wallaahi bu la songee doo doy fii nga jëm ak sénégalais yi gis ngeen sénégalais yi ma ne leen seen doxum ñaxtu yi ngeen wax ñu organiser ay doxum ñaxtoog loolu jaratu ko billaahi sénégalais yi bu ñuy jóg jóg yëg-yëg lay doon jóg goo xam ne ku la sa ndey wax toogal nga ne ko yaay tooguma ku la sa baay wax toogal nga ne ko baay tooguma bu boobaa nit ñi dootuñu amati kilifa dootuñu amati dara ndax li ñuy gis dañuy gis ni lii yabaate la ku déglu ay nit ñii dañuy tardeel ñun ñu ngi bëgg a dee ñun danoo damm danoo sonn mag ñi màgget nan ñoom seen temps weesu na li ñuy toog mooy jaamu yàlla yor seeni kurus ñun ay gone leen danoo bëgg suñu àdduna ku jaj du nekk fii tubaab di ñu not buumu jaam gii ba léegi mu continuer sunu pétrole bii di demee nii muy continuer sunu géej gi nappkat yi nekk fi war a napp ngeen jaay géej ga nappkat bu génn dem ba dugg ca biir géej ga jaay nañ géej ga tubaab bi dinañ ñëw mbëkk sa bato nit wax na ko fi sa gaal nga dee yoonu gouvernement nekku ci nappkat yi amatuñ lu napp baykat yi amañutu lu lu kii jaaykat yi ku ci dem ba góorgóorlu yor sa place jékki-jékki ñu yëkkati na ne la sa place bi waroo ki leneen lan fi tabax dimbali la ci dara di toj di toj di toj këru jàmbur yi maanaam lu leen neex def Macky Sall Macky Sall Macky Sall teyal Macky Sall àndal ak sa xel Sidi Lamine li mu la doon wax dëgg-dëgg man comprendre moom kuy Sidi Lamine démb mais maa ngi soog a dégg li mu doon wax ndeke moom dafa yëgoon lu xew te ñun ñii booba yëgagun lu xew jàppal ne ay Sidi Lamine bari na jàppal ne ay bu njëkk benn Cheikh Anta moo amoon mais bu leen juum. jàpp ni benn Ousmane Sonko rek mooy patriote benn ku mel ni Ousmane Sonko rek mooy bañkat dafa am ay nit ñoo xam ne wallaahi comme Ousmane Sonko wala ñu gën a nekk sax gën a dee sax Ousmane Sonko pour ngeen bàyyi ci xel amoo leen ak Ousmane Sonko affaire yéen sénégalais yi ngeen amal affaire amoo leen ak problème parti politique Pastef amoo leen ak problème benn jëmm ñun danoo sonn ñun danoo gëmatul ay mbooloo ay nit amee rek Sénégal gu jag la ñu gëm Sénégal gu defaru la ñu gëm Ousmane Sonko wane na ko woote na ko ku mel ni Cheikh Anta Diop. ci 2021 bii bañkat yi ni nu baree nit ñi am jom nu mu bare nga naan da nga koy jéem a sàkkal pexe wala Macky Sall teel sa du si yooyu bu dee loo naroon si ñett téye toogal nga noppi ne muut xaar ba 2024 ele ñun sa problème bi ñu am ak yow du ay problème Sonko Macky yi lañ bëgg nga taxawal ko élection locale yi élection maire yi dama ni la waa kii taxaw nañ fi waa Kër Massar taxaw nañ fan yële ci mbënd bi di bëgg dee ne seen maire bi liggéeyu dërëm waa Cambérène def nañ ko waa waa waa dëkk bu nekk ñu taxaw ne seen maire yi dootul la seen maire yi liggéeyuñ dara tous defuñu ko ci réew mi mu mitti leen mu doon dëgg yërëmoo askan wi yaa ngi fowee askan wi yow ki nga jiital teg ko mu doon ab maire deful tous nga war a def ay election waa gox booba xool maire bu leen doy muy maire géejawaay ba muy maire feneen feneen ku nekk xool maire bala la doy nga teg ko fa léegi nga ne lool du fi amee changé wu ma maire donte liggéey na donte liggéey lii day wane seen ñàkk liggéey ak seen yàpp askan wi yow nga war ñu organiser élection locale defuloo ko war ñu lijjanti leneen waxuñu dara nga ñëw naan dangay jéema jéem a dal ci tànki Ousmane Sonko barki yàlla ruux nga gaynde wallaahi Macky ruux nga gaynde Ousmane moom su bëggee rek yow andi problème Sénégal boo bëggee Sénégal gis nga nit ñi bu ñuy jóg laa duñ ko yëg loolu ma bàyyi loolu ci xel bul foog ni nit ñi dañuy toog nga ñaan da ngay indil problème wala dara nit ñi toog fii naan sa waay kaay leen dimanche le def ci Facebook bi kaay ànd dem ñu dem euh, jàppale Ousmane Sonko ak yooyu gars yi def loolu de gars yi dañuy jóg fippu fi leen Sonko tollu la nga xam ko te li tax Sonko toll leen fa dañ ko xoolee ba tu see te nit ki li tax ngay bëgg nit ki topp nit ki fonk nit ki mooy da ngeen a bokk yëg-yëg li xeex da nga xam la muy xeex ngay xeex yàlla moo jiital Sonko Sonko nekk suñu kanam loxoom set wecc ñu mel ni moom nag nekk ci am xoolal fukki juróom fukki gaynde tey nga bëgg leen songu Macky Sall bu ruux ay gaynde Macky Sall bu ruux ay gaynde lii ab conseil la boo xam ni lu ma lay jox la lii nii Sénégal sama waay bi Sénégal ngay waar quoi Sénégal ñun mënuñoo comprendre mais Macky Sall Macky Sall Macky Sall lii doy na ku lay conseiller sa conseil yi kan moo lay conseiller sa conseil sa conseil xalaati dof yi nga xam mën na taal réew lii ku ko dégg da nga war a tas say nopp yow yi ngay def yëpp am na yoo xam ne nit ñi mënuñ ci dara mooy comme li ma doon wax démb boo taxawee fii nga wax yenn wax yi nga ñëw sànni ko nit ñi mënuñ ci dara mais tey ku mel ni Ousmane Sonko nga naan da nga koy jéem indi problème ma dajale sama xaalis ñëw pour sama réew xaalis boobu ordonnance la jàppal ni Macky xaalis boobu ñuy jox pour Ousmane Sonko wër la pour ordonnance sénégalais pour sénégalais yeewu Ousmane Sonko dafa bëgg a yee sénégalais pour ñu comprendre xam li xew yëg lu xew ordonnance la loolu xaalis boobu ñu yokk Ousmane Sonko pour Ousmane Sonko dem def tournée boobu tournée boobu yeete la pour nit ñi nan bay pour nit ñi nañ fexe suñu jën bii nun fexee nun ko nun ko kiiwee pour nit ñi nañ fexe franc CFA bii maanaam dafa diis si ñun kan ñu xool nan lañu changé franc CFA bii pour nit ñi xool nan lan yan solution lan mën a def ba tabaxi hôpital pour nit ñi fexe nan lan mën a def ba France dem yoonam ñun jaam France gi dafa doy dafa ëpp France li mu fi am dafa doy sax pour nit ñu waxuma la sax ñu yem foofu waaye dem yor seeni marto dem tulli monument yi ñu fa teg Sénégal naan monument bi kii mooy Faidherbe kii mooy kii mooy ki jàppal sa maam yooyu ñun dafa danoo bëgg mu jeex dañ cee doyal ñun danoo doyal ci ñàkk fayda gi ñun li ñuy dund dafa metti suñu xol di metti suñu xol mais nag bul tax yaa ngi sësloo yaa ngi mettiloo yaa ngi merloo yaa ngi ruux saw askan yaa ngi andi fitna ci saw askan yaa ngi tax ba sa askan suba mën na ñëw dal sa kaw te élection bi jot bàyyi ci xel Macky billahi sa askan mën nañ ñëw dal sa kaw Macky Sall te élection du jot te 2024 duñ fa egg teeyal lu mel noonu jéem a la rafetal sa fii ba 2024 nga jéem a def tooñ nga ñu tooñatuñu tooñatuñu tooñat bi ñu nga jéem a xool nooy xaw a serale suñu xol wala noonu mën a naxee donte du dëgg pour nit ñi seen xol sedd mais chaque jour naa xool askan wi lu seen xol gën a daggee naa xool askan wi lu seen xol gën a ñéngi nga jàpp ne dañ ci am ndam barki alquran doo ci am ndam barki ak barki alquran Macky Sall doo ci am ndam ndax saw askan ni nga leen di merloo baaxut mën nga merloo nit ba mu yàgg nga jékki-jékki nga ne kii sax naa ko nax donte da koy nax sax doon da nga koy nax mais sa maa tey yi dafa ëpp maa tey maa tey maa tey maa tey maa am doole maa am doole bu yàggee nit ñi fippu de bu yàggee nit ñi fipp dama ni la mbërum làmb bu muus am na nooy tuutalee mbërum làmb sa morom sa adversaire nga koy tuutal maa la mën dinaa la toroxal dinaa rey sa ndey dinaa rey sa baay dinaa la dammati gis ga sa adversaire jàppal ni yaa ngi koy di nga dina dem ba bëre loo xam ne moom du moom yow nag yaa ngi may say adversaire Pastef doole yow yaa ngi may Ousmane ko doole loo def sa defet la da ngay gën a yokk nit ñi doole dangay tax nit ñi di gën a wax dama ni leen sama gaay yi ñun moodu moodu yi nekk fii dama ni leen wallahi dafa doy te dafa jot dama ni sama gaay yi pour ñun ñu wax ne ñun fenuñu pour ñun ñu wax ñu ñun lii dëgg la dama ni leen 2024 ñu ngi leen di woo di invité bépp moodu moodu xaw ma kit si xaw ma lu mit si xaw ma lu koy tuddee ñun ku ci nekk toog nga jaayante nga taxaw nga ne man deux 2024 élection yi man duma ma fekk fii Europe man fi mu may fekk Sénégal la may fekk moodu Modou yëpp ñu bokk boole dagg ay bee daggandoo bee ñun ñëpp ñu dem aéroport nekk fa ay millions de personnes Modou Modou bu ñuy jàpp même buñ ñu jàppee ay guerrier lañ même buñ ñu jàppee def nañ dara ci ku wàcc aéroport ñu jàpp la Modou Modou bii lan moo tax ñu jàpp ko Modou Modou bi dafa wàcc pour xool Sénégal élection yi ndax jaar na yoon pour xool Sénégal ndax Sénégal nan lay demee ngi xeexal réewam paa ci ay jaasi paa ci ci loo xam ne ci lu rafet ci lu rafet pour élection yi jaar yoon pour ñu bañ a toog fii di fontoo nit ñi moodu moodu yi dama ni bu fekkee ñun activiste yi wax ñuy wax bu fekkee ñun dëgg la suñu nanu programme lu mel noonu 2024 ñu ñëpp ñu wax ci doo sa yaay bu la nee bul dem bul topp sa yaay sa baay bu la nee bul dem bu topp sa baay nga xam ne ñoom yaay baay ñoom seen i temps passé na ku ci nekk ñu ngi tàggee sa ndey di tàggee sa baay ñun ñoo fi des te ñun sax xaw nañ sax jeexal mais pour suñuy doom benn suba pour suñuy doom benn su mais bu mu bi ba kañ yow yaakaar nga ne yow dina taxaw fi nga ñuy jàppal Cheikh Anta Diop yow yow yaakaar nga ne ñun dina taxaw fii nga ñuy jàppal ñun Mamadou Dia ñun yow yaakaar nga ne yow dina taxaw fii nga ñuy jàppal Nelson Mandela yow yaakaar nga ne yow dina taxaw fii yow yow nga ñuy jàppal yow mboolam jàmbaari Afrique yëpp nga dajale leen ñoom ñëpp boole leen ñu doon benn jëmm nga bëgg ne yow benn Macky Sall yow nga jéem a toroxal kooku yow yaa ci tuuti na jamonoy maam weesu na jamono yi boobu jamono yooyu ba mu ne la yeete amut dama ni la nit ñi xamuñu woon dama ne la nit ñi dañ doon nelaw da ngeen doon nax maam di teg dil mais tey tey tey tey non du yomb de du yomb de billaahi wallaahi du yomb Macky Sall du yomb Macky Sall stop sa sa yii dafa ëpp sàcc leen amul problème yéen a xam mais lu yàgg-yàgg di ngeen wàcc di ngeen wàcc ba nit ñi xam ni tey ñi fi sàccoon ñëpp lépp dana leer sàcc leen bu leen neexee yokk leen gaz yokk leen pétrole yokk leen diw na sénégalais yi gën a dee gën a xiif moo gën ci ñoom sax pour ñu mën a jug defal lu la neex mais Ousmane Sonko moom goo ci jéemee dugg ma loolu yàpp ba yabaate yam loolu bu naree am wallahi ñu tëral leen rendi leen xatit par benn benn sax moo gën ñun sénégale yi ñun ñuy wootee patriote ñu bañ a giste benn yoon France ñëw jiitañu benn yoon ñu nekk jaamu France benn yoon yaa ngi dugg ci combat dama ne la da nga ruux gaynde dama ni la da nga ruux gaynde dama ni gars xoolal ay bravo ay merci yow amul sens nañu gëm suñu combat bi nañu xeex sama gars yi gëm suñu combat bi lii buñ fi am buñ ko seetaan lii buñ fi am buñ ko seetaan man ay martu moo ma gënal sax ay kër nañu xeex suñu combat bi sama waay Macky Sall lii dafa ëpp lii dafa ëpp suñu moonin bi ñu dajale nga def suñu mooni toog xaalis si Modou Modou yi du fa dugg xaalis si Modou Modou du dugg fële quoi pour ñu jàppale Ousmane Sonko dañu waxoor parti passif kii ko yow Pastef boo ko tasee mooy léegi kon mooy dëkk ba lekk nekk dëkk mu naa fekk léegi yow Pastef yow ñun suñ kuréel ay ndaw yu dajaloo li tax ñu dajaloo ñu ne dañoo dajaloo pour lan lan moo dugal nit ki passif nga laaj kii def leen territoire kii télé ci poste ci mbedd ngeen xool laaj membre passif yépp ku nekk ngeen laaj lan moo la dugal passif nga ne yow lan moo la dugal passif ku ci nekk dala naan ba ma déggee Ousmane Sonko naan hôpital ba ma déggee Ousmane Sonko naan buuma jaam gi dog man lii moo ma dugal ci passif yëg-yëg bii nga gis kii naan la man mosumaa voté mosumaa gëm politicien benn ci man mii mosumaa gëm ay politique ndax man yàlla dafa dogal bu damaa juddu màgg rek xam ne Sénégal yaa quelque chose billahi wallahi damaa juddu xàmme xam ni mosuma gëm politique pas comme nit wax ma ko dama ko seexlu pas comme sax ay journal ak dégg mais xam naa ne fii am na loo xam ni xawma lan la am na lu xew ñii dañ ñuy fooyee ñuy dëgguwuñ am na lu xew mais man li xew loolu laa xamul woon lan la Ousmane Sonko ñëw xamal ñu lu xew loolu lan la moo tax ba mu doon wax ñu koy jéem a gëstu di ko gëstu ndekete ci lan comprendre xam lu xew muy boom ak jaam geeg bii ci la ñu wax ne ñu kat moom bërëb ba mu nekkoon doon fa liggéeyee ba mu fa nekkee ñooña luñ fa nekkee mooy signé lu du dëgg ñooña lan fa nekkee mooy sàcc nan leen gouvernement bi kii bi nii lay demee ñii dañuy sàcc affaire pétrole yàgg na fee génn mosoo leen ñu ko wax ci jamonoy Ousmane Sonko mii la ñëwee ngeen bëgg tey sunu kii boobu kii yoole sàcc yi di leeral mbir yi ngeen bëgg naa da ngeen ñu koy tëjal bu du woon yaakaar ngeen dinañ coow ci pétrole gi kañ leen xam ci pétrole kañ leen xam lu xew ci pétrole mosoo leen ñu ko wax mësoo leen toog di wax ni ñuy pet dekatawoo yéen a ngi tànq sunu sunu essence xaw ma gaz xaw ma pétrole xaw ma lanati la ci ngeen jël ko di ko tànq di ko joxe ñun mësuñu ci xam dara bu dul woon Ousmane Sonko yoole ñu ko wax ñu ko duñ ci mës a xam dara da di topp seen ginnaaw sama kalaas gi toog naan ku toog baax na ku falu baax na réew bi am na nu muy demee mais ba demee ba xam ba xam lu xew yaakaar ngeen Macky Sall ñun dañuy toog dinaan naan yàlla baax naag toog baax naag ku kii ñun ko fi toog suñu réew suñu alalu réew la suñu doomu réew yi di dee dama ni la ñi nga xamante ni si dañuy feebar seen tànk rëq lu ñaaw lu salte lu bon lu bona bona bona bon ay lafañ bëri na war a yi bon ñoo ko waral yéen ñin dagg seen tànk doom dama ne leen jug leen ngeen xool Ousmane Sonko mi ngeen ànd ak ku mel ni moom seen tànk doom yi lu tax ñu dagg ko dama leen di wax li fi nekk Sénégal dama ni leen am na ñu baree bari nekk ay handicapé ñu dagg seen tànk waruñu woon dagg seen tànk ay njiit bon ànd tubaab yu bon saraxe seen réew mu ne na ab xool leen gone gii tànkam mokkatoo tànkam dam mu ñëw Sénégal ba ñëwee Sénégal Sénégal sa pour dem faju ñu ne boo amul téeméeri junni duñ laal sa tànki doom xool leen bile bon téeméeri junni ci xale bu ndaw nga war a sooy xale bi mu dem Gambie ba mu demee Gambie ñu defal ko ko may ko ko kon Gambie yooyu sax yéen ñoo leen tane ñëw fii Sénégal xale bi buñ ko bàyyi woon tànk bi dafay nëpp ñu dagg ko Sénégal da gis nit tànkam feebar mu war a dem faju ji ordonnance bu manqué tax ñu dagg tànkam ndax oh, ndax médecin yi nee kii amul xaalis téeméer sagaru téeméeri junni tax ngeen yàq fi def fi ay milliards milliards yi la faj fonkoo leen nit fonkoo leen seen doom ña nga xam ne ñoo leen ko teg mooy ña leen jiite muy France France bi nga xamante ni si ñoom ñoo teg lii Sénégal duñ dagg seeni tànki doom ci loolu ku ko fa def ñu teg ñu ne la ràpp ci kaso ñii bëgguñu leen français yi ñoo ñëw nit ku weex kooku moo ñëw dugg sa biir dëkk di leen toroxal seen waa dëkk ni ñuy dagg seeni tànki doom yuñ tegu fenn France boobee di tibb seen alal yéen a tax muy dund loolu dëkkam ku fa feebar kenn du dagg sa tànk ku fa amul kii faj ñu bàyyi leen génne feebar di leen sànni ay mbalit di leen fowe ànd ak njiit yoo xam ne bëgguñu seen bopp gëmuñu seen bopp dama ni la sénégalais yi nañ jóg sénégalais yi nañ am fulla sénégalais yi nañ am fayda mbéjum kanam borom ak ay fajal boppam dama ni la ñaar fukki nit benn Macky Sall moomut Sénégal lii bu amee ñun la neex Macky Sall bu fi ji muy def nii sax ñun la neex ñun sénégalais yi ñoo ci ànd. dañ koo jiital dëgg la njiit da ngay bàyyi mu liggéey waaye nekkul Macky sàll moo moom dëkk bi su ko neexee rey su ko neexee tëj su ko neexee xool àll daay gi ba mu nekk ko ñëw lakk ko bu ko neexee teg ay luwaa ne loi yi su ngeen ma falee lii laay def ñëw yokk ko bu ko neexee ne élection yi sax amatul fii ba 2024 te defaru fi loo xamante ni si lu baax ci askan wi la yaa ngi serexe askan bi def fi loo xam ne dangaa mooy carrément li fi liggéey baaxut nga bëgg ne da ngay continuer waat forcé ko lu la neex def lii dafa ëpp li la may dafa ëpp te nit ki bu la mayee di la seetaan di la seetaan ci yii yëpp yow waxatuma dara ngay gën ëppal ña nga xam ni ñu ngi ñëw pour jóg pour lu baax pour di xeex lu baax nga ne ñooñu tey dama leen di toroxal nga ne ñooñu tey duñ fi amati kon loo bëgg kon kon tubaab bi daal takk ñu jaam far foosu daal ñu tëj Ousmane Sonko Pastef parti bi nga xam ne ñoom li ñuy xeex dëgg la Ousmane Sonko li muy xeex dëgg la pour Sénégal bi defal nga jëw mu neex la tey nga ne tey loolu kon France yónni la lii benn la rek Macron ñëw jàpp Ousmane Sonko ne kii mooy seen politicien bu baax kii mooy ku bëgg a jëmale Sénégal kanam parti bi mooy parti ba parti boobu léegi dañ koy annulé quoi bokkutut Ousmane Sonko dañ koy tëj waa léegi ñu dugal fi système bi toog ci bon ci lu bon léegi loolu continue ngeen takku nu jaam far foosu lii lay firi mag firiwut leneen lu dul lii lii billaahi duñ ko nangu wallahi duñ ko nangu lenn kay mën na la ko nangul dañ la toogal foofu yéen sàcc leen bu leen neexee guux leen pétrole bi pétrole bi si ñëw leen ko lu leen neex mais nag ñun suba ñi ngi xalaat pour soppi suñu réew képp ku guux pétrole di nga ko fi génne képp ku fi tëj doomu jàmbur lu dul dëgg yow dina la ubbi lijjanti loolu tëj la nga dugg fa nga ñam kasa ba lépp lu fi waaye def lu bon da nga ko fay ñu may la ko ba 2024 loolu mënal nañ la ko defal tëjal euh, lu laa neex defal laa la mais comme tey ñi bëgg a jóg ndaw yi bëgg a jóg fipp ngir defar seen réew ngir tabax seen ne ndaw yooyu léegi seen njiit ba dama koy tëj wala dama koy sàkkal pexe seen parti ba dama koy tëj ban parti moo fi nekk bu dul parti Pastef lii mooy man maa moom Sénégal lii mooy lu ma neex laay def Sénégal lii mooy maa tay lii mooy maa tay maa tay lii nag yëfi dof la yëfi ngaaka la yëfi cuuni la booy ba nga bàyyi xel sa bi doxul de billaahi li la conseil baaxul xaw ma ku la ko conseil mais am na ñoo xam billaahi seen bakkan leen jaral buy ba booy ba xel Macky Sall damay ragal yow dangaa am say analyse baax yoo doon indi avant ngay falu dama ni la ci sa histoire booba nga doon wax ña nga xam ne xaw ma ban dëkk seen président ba nekk fa di def lu ëpp yow li ngay def moo raw la kooka di def askan wa danoo jékki-jékki jug màbbandoo tàgguntawuñ sax nekkul sax ay xeex boo xam sax nit ñi sax doon koy pare damay ragal nga egg foofu kon dafa doy dafa doy sëkk sénégalais ngeen am fulla ngeen am fayda am na discours yoo xam ne ñun waruñu koy toog sax di nangoot Macky li muy wax nii nañ ko ne Macky Sall ñun sénégalais yëpp ñu ànd ci lii ngay def nii du li ngay def nii njaayum doole la kilifa yi wax ak ñoom ñëpp wax ak Macky Sall mii mu bàyyi li muy def Macky Sall li muy def nii ëpp na li muy def nii ëpp na trop Macky Sall moomul Sénégal Macky Sall moomoo Sénégal yaa ñu jiite mais moomoo senegal da ñoo jiite dëgg la yaa jiite yaa xam si ñoo ko jiitee waaye moomoo Sénégal ba lu la neex def ba nga mën fi signé yoo xam si wala di fi def yoo xam ne ñun daf ñuy lor lor suñu doom wala nga ñëw tey nit ñi di xeex. pour xeex pour bu mu jaam pour CFA pour xeex loo xam ngir Sénégal ko baax nga ne loolu dangay ngay ñëw kii leen mi ngi mel ni nga rey Cheikh Anta dama ne mi ngi mel ni nga ne Sénégal bu mu jëm kanam système bi na fi continuer ñu toog jamonoy buur buur yi nga xam dañ daan jaay doole nit ki saaf ginaaram ba mu ñor def ci kaani def ci poobar teg salaatam ak pombiteeram toog ak njabootam war a lekk buur ñëw nangu ko ne ko doo ko sàqam yi li ngay wax nii yow Ousmane Sonko lii la li di benn la loolu am na ñoo xam leen ko defoon seen bakkan lan la jox du kee sama jëmm ginaar ma ne la ab yalwaankat bu ñëwoon ne sarax ngir yàlla ñu sarax ko yalwaankat ba ut ci ngërëmal yàlla waaye nit bëgg ñëw bëgg leen foq foqati loolu bëgg leen jaay doole wallaay di nga leen gis Macky Sall moytul nga gis ñu nag moytul say doomu réew danoo yeew say doomu réew danoo xam fu ñuy taxawee danoo xam lu xew Macky Sall ñun xam nañ système bi Macky Sall ñun xam nañ ni Macron mooy njiitu Sénégal ñun xam nañ lool Macky Sall ñun xam nañ ni maanaam pikiir yéeg yëpp nouvel ordre mondial la muy Macron am ñoo xam ne nangu nañ leen ñu mën a duut ay pikiir suñuy doom ñun comprendre nañ loolu Macky ñun comprendre nañ suñ pétrole bii jariñu ci Macky ñun comprendre géej gi ni mu demee li tax ñu am problème mais danoo amagul solution pour kan moo fi mën a toog ku baax ku bëgg réewam ab patriote mën a fexe ba géej gii ñu mën ci gis suñu bopp di mën a lekk ci jën yeeg njaboo yeeg yooyu Macky ñun xam nañ ni suñu pétrole bi ak suñu alal suñu suuf yàlla def na mu suuf si nangu danoo amul ñu dooleel njiit bu baax njiit bu fi nekkal ngir réewam doon patriote mën a dooleel waa doomu réewam donte dañ leen di lebal ay xaalis ñuy bay di mën a liggéey ci réew mi Macky Sall ñun xam na nañ business yi xam nañ nu mën a def mën a jàll ñun loolu lépp xam nañ ko ñun xam na ni France CFA France bu demoon yoonam mu bàyyi ñu indil ñu sunu doomu réew yëpp Sénégal wallaahi duñ ko soxlaal dara te sunu doomu réew yi fa ñëw maanaam duñ soxlaati France buñ fay dem dañ fay dem ngir vacances wala ngir leneen waaye duñ fa dem ngir dem di immigré ñun xam na lool xam na ni kon système bii kon ñoo leen tee ñooy fal ñooy fool ñoo ñu fi teg loolu nag ñu ñu koy xeex nekk ci combat bi ñëwuñu tëb xam loolu ànd ak suñu xadar ne tey dañuy jël yat fekk leen fa fàq leen ngeen jóg defuñu ko ñu ne mais affaire bi nan ko jaarale ci yoon dafa am nu di faloo mooy élection yi ñu def ay carte nit ñi voté ki nga xam ne gagné na mu falu sénégalais yi ñu fexe leen sensibiliser xaw ma nu koy waxee pour nit ñi mën a comprendre li xew ñu xool ku mel ni Ousmane Sonko ñu ànd ak moom jàppale ko. ba mu mën a falu ci njekk ak ci teraanga ñu xool nan lañuy def ba mën a xool suñu diggante France li nga xam ne nekk na fa lu mën a négocier ak ñoom ñu gis ci suñu bopp ñun waxuñu na fa génn dem yoonam waaye day fekk ñun ñu ciy jariñu mais bu fekkee loo xam ne amaluñ benn njariñ ñu dégager ko fa lu mel nii la ñuy xool pour nit ñu am fulla am fayda yërëm seen askan doon ay bañkat doon ñu bëgg seen réew doon ay patriote ñun ñu comprendre lu mel noonu di ko di xaar nag pour bis bu rafet di xaar na pour ñu ko jaarale ko ci yoon yow mii njiit yow mi armée bi nekk ci sawet wet yow mi nga xam ne doole gépp yow la ko yàlla jox ministre ya yow lañ àndal avocat ya yow lañ àndal militaire ya yow lañ àndal armée ba yow lañ àndal député ya yow lañ àndal sëriñ sa yow lañ àndal ñu baree bari yow ñëpp ñu am doole média ya yow lañ àndal yàlla may la doole googu yëpp ba tax nga beew ba tax na nga bëgg loola neex nga def ñu néew doole gi nga xam ne chaque jour ñun ñi ngi gën a néew doole rek chaque jour ñi ngi gën a am problème maanaam ñu toll fii pour xool situation yi nan lañ koy lijjatee pour xool nan la ñuy génnee ci mbuumu jàng yi nga bëgg nga ne nag dañuy baare ci jaayam doole lii moom jàppal ni mooy li nga bëgg a def nii dama la koy wax li nga koy misaaleel ndax yeneen yi ngay def da ngay foqati ñu ne kii foqati na amagun solution amagun lii amagun lii mais bi ngay def nii moom xam nga lan lay nduróol mi ngi nduróog rek jamonoy maam mooy nga delloo ci bu mu jaam gu wér a wér jamonoy maam daal liñ daan fekkee maam jàpp ko takk ko yóbbu ko gore maanaam dugal ko ci gaal ga monete ko kuntaakintee dem jàpp ko dam di dóor maam di bayloo maam duñ ko fay dara lii nga bëgg a def di xañ Pastef seen liggéey ak seen gis-gis bii ñu koy xeex bu fi Pastef jógee kan moo fi nekk bu fi Ousmane ko duggee ban politique seega ba fi mën a ëndil bu baax waa Pastef bu ñu fa jógee yan ban parti bu baax nga ma fi mën a indil kon loolu kon mooy kon ñiy xeex pour mbuumu jaam gi jóg nga ñëw jëlee leen fi mooy da ngaa bëgg sampaat njuumu jaam ne da ngay dooleel Macron ci suñu biir réew Sénégal te ñun ñu nekk ay Sénégal lii mooy dooleel Macron lii mooy dooleel système bi lii mooy xeex lépp luy ànd système bi Macky saa duñ ko nangu sama gars yi ngeen partagé live bu baax baax a baax a baax ngi siyaar ñëpp te di leen wax ne ngeen am jom sénégalais yi am leen fit bu leen ragal wallahi ñu bokk ànd xeex suñu réew ànd xàccandoo dóorandoo salaamaaleykum wa rahmatullah